di nuyuwaat mbokku internet Lutte TV rek di baalu ñëpp aax di leen baal aax di leen ñaanal jàmm rek ni ñu koy ñaanalee suñu bopp ni mu ko waxee woon rek waa Palestine ñu leen di xalaataat rek. parce que nee nañ la lu mel noonu boo ko gisee si si réew wala si dëkk da nga koy méttitlu boo si mënee wax tamit. Oh. ñoo ngi a ngi ci jàmm a ngi jàmm baax naa fa ñëw ziaré ci leen quoi ñëwal saf boo ñëw da war a ñëw boo ñëw da nga war a noo gisee lamb ji waaw neex rek. Madou Madou Jon daf ma laaxatu gisuma ko. non mu ngi fee toog après. borom fooñ. waaw yaa ma gën a xam. ak Joof yoon waaw. ak Inteset ak fan. barki Serigne Touba Mbacke Inteset. naka xam ne yéen gars yi namoon nañ la. waaw borom parcelle. réaction réaction barki Serigne Touba Mbacke. jeune parcelle yëpp dañoo pare pour ne si ginnaawam parce am na jom xaga nga gëm waaw di laay bëri waaw waaw dégg naa dégg naa mu ngi góor ñëpp ngay jàppale ñu ngi koy ko gërëm mouvement réaction yëpp waa passé dañu jóg taxaw nekk ci ginnaawam mook raxam DG waaw mef maa ngi koy ko gërëm ñooñu kuta waaw Boucar buuru gërëm <laughs> merci loo ne waaw maa ngi rek naka lamb di ñaan yàlla jël ko rek comme que andi jom fu la fayda daal comme que dégg naa dañoo tojoon fii frontière bi ah, tojoon frontière bi dégg naa dañ tojoon mais bëtt naa ñëw inshallah waaw acca kon bonne chance ñoo faar waaw ñu si kaw ñu si kaw lan nga yëg non instant sama ñoo jor nag benn doom day laa fa jogo jee dëggu ma ñoo jor nag dama fa am benn doom day jogo waaw jogo mu moom ay bal problème la bëri moom ay bal tey moom ay bal moom ay bal loolu waaw mais naka lamb ji nag. loo andi. waaw am naa ci yaakaar bu baax. am indi confiance bu baax. gars yi namoon nañ la de. waaw waaw ñëw tey. Ah. kon bàyyi ma na la bonne chance. ok jàpp si loo si loo ne. maa ngi nii. namu naa la de. sant yàlla. yaa ngi noos. waaw kompo rek. ah naka lamb ji. ah lamb ji neex na de. baal ma yàqu. naa na ñu yàlla bokk. amiin loo andi tey. Kaza Yankou seen combat bi yàgg na tamit Yankou Boy Kaza daw na jël na ko mooy Boy Kaza jël na Yankou Yankou bañ ko Yankou génne na ko Boy Kaza Yankou ba Yankou moo leen woon ginnaaw Yankou Boy Kaza jël na ko daan na ko Boy Kaza daan na Yankou ba oh Yankou ba Boy Kaza daan na ko trompeur waaye Modou Pouye Simon jël na tànk ba Simon jël na tànk Modou Pouye Modou pañ bañ na Simon ak Modou Pouye Modou Pouye moo yore ngemb lu moo jógee Petit Mbao Simon ak Modou Pouye waaye Laga ak sa waay booy bi na Laga ndombo Laga war nañ la war war loo ordinateur waaw ordinateur daan na ko Modou Pouye la Simon daw na jël tànk ba Modou Pouye bañ na Simon jël na tànk Modou Pouye Modou Pouye bañ daw remplacé ko mu moy Modou Pouye ak Simon Simon jël na Modou Pouye jël na tànk ba daan ko Modou Pouye daan na Simon jël ba leer na Laga ak sa waay booy ne ko Laga bañ na booy bi Laga ko du ko wetu la nga mbotti ko da daan wala la nga mbotti na ko da ngay mbotti wante arbitre booy bu jëlaat na talaata tànk ba la door ko tànk la nga door na ko tànk mu moy la nga ndong booy bu daw na takaat na ko la nga na ko deuxième pied o oh, mbotti ba moy la nga na ko mu dafa mën a tànk moom la nga la booy bi jëlaat na ko la nga waat na ko mbotti ba moy na daa sori la nga parce que sa waay jël nañ tànk ba jël nañ sa tànk mbaa di si génn da dëj wala dala wala da koy bale wala kat appui wala lan arbitre nee na dara amul wër ndombo mbaa di si génn penalty wu lamb la bu rëccee say mbokk rey la ja ma ngi tër ma ngay bañ waaw daan na ko jël ba leer na Pape Maroon sa waay daw na jël na ko daan na ko sa daan na Pape Maroon nee na xaalis bi la soxla. Ngor Ndangaan ak sa ak Mbalka bu yaayam Ngor Ndangaan daan ca Aba Joral Aba Joral ak Gongle Papa Dior sawaay jël na ko bandi 40 ans ak sawaay ña nga ca bandi sol na ko libi door lonku na ko ca ba mooy bandi jëm o oh, libi bandi bandi takk na ko bandi 40 ans jongole na ko bandi 40 ans ak libi door bu ngu ñaan jongole waat bandi 40 ans daan na bandi 40 ans na libi door lan la wa arbitre lan la wax o oh, arbitre nee bandi 40 ans na Malika Petit Lo moo leen won ginnaaw moo jege parcelle ak Famara doom day am di di ñaanal am di rek am di Njaay depuis Joal waaw am di ñu ngi lay ñaanal wér gu yaram rek yàlla fëgg sa bopp ba nga delluwaat sa sago ca Petit Lo ak Famara Famara moo leen woon ginnaaw mooy pankal bi moo ëpp Famara takk na ko Petit Lo jëm ko mboti Famara takk na ko dajale na Petit ak Petit Lo Famara na ko Famara daan na ak Aba Joral Aba Joral moo féete càmmoñ moo mi ca beneen combat gong o oh, Aba Dioral daan ko Aba Dioral daan gong le Obali Obali ak Alaaji Ousmane ñu ko Bukki Ndangaan Bukki Ndangaan moo leen woon ginnaaw boo seetloo si tay Obali ko gën a diis waaye Bukki Ndangaan ndaanaan la waaye naan ko Bukki moom moo jege Ndangaan moo féete càmmoñ Obali féete ndeejoor Madu mbaru waaye léegi daa mel ni am na am na am na doom day bu bees mooy Go Faye borom mouvement réaction doom day lay président Ablaye Faye président Fatou Kër Mbaye ma koy nuyu de passage di ko begee di ko ziar ca combat baa ngi noonu oh daw na jël ko mu moy obali remplacé ko jëlaat ko tamit mu moy wala nga ne Modou Pouy ñoom ñaara daje ca obali Obeuli Alaaji Ousmane waaye Mbaye Sarr ak Boy Kaza Boy Kaza jël na tànk ba Boy Kaza jël na tànk Mbaye Sarr da koy daan wala Mbaye Sarr jël na ko prise Boy Kaza ak Mbaye Sarr Boy Kaza jël na da koy daan wala Boy Kaza Mbaye Sarr si génn ni la Boy Kaza def da koy daan wala waa mais lii moom MMA la wala lan la ni Boy Kaza ak Mbaye Sarr Boy Kaza Mbaye Sarr arbitre dara Boy Kaza Mbaye Sarr Mbaye Sarr mbaa di nga ci génn mbaa daan koy daan wala arbitre waaw da jël ba na Boy Kaza daan na Mbaye Sarr jël ba leer Modou Pouye ak ñaari mbër yaa nga ca Modou Pouye ordinateur ak Modou Pouye Modou Pouye ak ordinateur ordinateur faxat na ko Modou Pouye war na ko ndombo war na ko ordinateur ndombo Modou Pouye war na ko ndombo Modou Pouye da koy daan wala ma ngi koy tër ma ngay bañ ordinateur baa di nga si génn Modou Pouye war na ko ndombo Modou Pouye war na ordinateur ndombo ordinateur ba di si génn ma ngi koy tër ma ngay bañ daan na ko Modou Pouye daan na ordinateur Modou Pouye le revenant le revenant Modou Pouye daan na ordinateur Ibrahima Diouf daan nañ mbërëm bi ndeysaan Zal bu Ngoy ak Toubacouta Zal moo féete ndeyjoor su ma nee Ngoy sama xel dem si Basuka fàq man la daw na ma nga États-Unis waaye Aliou Sarr sama boro borom boro borom ngoy ma koy nuyu de passage rek ak grand ñoom Assane ak grand Mbaye di de passage di nuyu waa ngoy yëpp combat baa ngi noonu Toubacouta ak Zal bu ngoy caare Sarr mam way boobu di nuyu frère am Kabou Sarr depuis Espagne ak les ressortissants sénégalais yi ne ci Espagne ku si mel ni Baye Saliou Ka borom Mbour aca Toubacouta ak Zal Zal bu ngoy Toubacouta Zal Toubacouta Zal waaw Ibou Ndiaye day jàll par décision arbitrale Ibou Ndiaye jàll na par décision arbitrale Toubacouta Zal bu ngoy Zal daw na jël ko mu moy Zal jël na ko mu moy Toubacouta daw na jël Zal daje nañ Toubacouta lonk na ko Toubacouta lonk na Zal Zal bañ na botti na ko daan na ko Toubacouta daan na Zal Toubacouta daan na Zal arbitre arbitre Abdou ak Bandi Karanda Abdou jël na tànk Bandi Bandi bañ na da daan wala Abdou jël na tànk ba Bandi mbaa di nga ci génn Abdou Bandi génn na ca war na ko ndombo Bandi war ci kaw door si suuf Bandi 40 ans daan na ko jël ba leer na Bandi 40 ans daan na Abdou du bandi 40 ans wàññil at yi. Ah, la sax de. bandi 20 ans. non koor gi wala bandi 22 ans. koor koor gi moo yaa ngi doon wóor sax. Oh, sëy na est-ce que yaa ngi doon roobaan. yàlla xam na ko mais si loo ne. sant suñu bopp baal ma baal nañ la. yàlla na yàlla boole jégal. amiin yaa rabbi looy wax fan si. ah kontaan si ñoom rek. di leen bëggee. waaw. Ah, mais lamb ji tey daa mel ni daa mel ni tey moom sax dafa tàng. waaw dafa tàng moom wax dëgg yàlla. boo yéene too del del door ndànk. loolu amul si lamb binduñu ko si règlement CNG. Ah. waaw kon aca à suivre. ok waaw waaw waaw Boucar Boucar. waaw yaram bi dafa tàng de waaw waaw loolu la. yaa ngi ci kawam de. waaw waaw maa ngi mu mel ni mu mel ni maanaam dañ la woo nga war a bëri daal. waaw waaw dañ ma looy wax ñu looy wax waa Casamance. waaw waa Casamance maa ngi leen di sant di leen gërëm dañ ma sas barki yàlla man tàmm ma di ñëw si àll bi di bëre quoi tey dama takk sama ngemb gis tey moom neex rek neex barki yàlla barki yàlla waaw merci beaucoup merci aca Ngor Ndangaan ak Aba Joral aca ngor dangaan wër na ko takk saay mboti na ko daan na ko aba joral daan na ngor dangaan aba joral daan na ngor dangaan arbitre lan la wax mooy bandi zongale na ko oh Toubacouta ak bandi Touba kott na ko mu mooy zongale bandi bañ Toubacouta bandi 40 ans. seen yàgg na te métti. takk na ko Touba takk na bandi bandi bañ na. Touba takk na ko bandi bañ na Touba takk na bandi bandi a ngi bañ Touba na ko bandi bañ Touba ko ci kot Touba da koy daan wala Toubacouta bandi 40 ans Toubacouta arbitre nee na temps bi jeex na arbitre lan lay wax kan lay jox victoire waa gis nga waa tey xam rek bëgg jël làmb ji non kii xam naa ko waaw. mos ngeen bëri waaw bëri nañ benn yoon. Ah, ku daanoon. maa nga daanoon. Ah, da ngay da ngay laabali waat wala da nga koy may. waaw non dama koy daanaat kañ jaar fa yoon waaw. wax waa Bargny. waaw maa ngi bëgg di kontaan waa Bargny ñëpp. man am nga la doon Bargny lu ma am Bargny laa koy yóbbu. waaw li TV moom di leen ñaanal si kaw si kanam bu Bargny. Ndeyjoor moom ak Doudou moo jógee yaayam Sapeur faaxal na tànk ba Sapeur jël na tànk Doudou da koy daan wala daanaat na ko Sapeur daanaat na Doudou Sapeur ne woon na ma Boucar dama koy daanaat Laye Ndiaye ngi noonu bu waa Bargny ngi noonu di jibile waa Bargny ngay jibile waa maa ngi bëgg rek di kontaan Sapeur daa ñëw pour fay daam. waaw billahi mais naka la waay. waaw maa ngi ci kawam bu baax. waaw ñu ci kawam bu baax. di wax lan di kontaan rek di ñaanal waa Bargny. Ah. ak Diofior gi ma jaar. waaw man amul lu dul bari maa lay bëgg maa lay siyaar di la bëgg Ronaldinho Ngok le grand champion ma koy ak Aba Dioral Aba Dioral moo féete ndeyjoor Aba Dioral moo féete ndeyjoor Obali moo laame star bi moo yore ngembul xonq li moom Obali ay ca combat baa noonu waaye mboy mbaru Maadou Dione moom Obali Maadou Dione borom njeejeng ma koy bëgge ay ca combat ba ngoog Ablaye Faye président fan si kër Mbayang lu maa ngi koy bëgge Aba Joral mépp na waaye demul Aba Joral moo féete ndeyjoor moom mooy njool mi Obali moo jóge Diofior mooy profité du nuyu waa Diofior yëpp ak day ñor Aba Joral jël na tànk Obali Obali Aba Joral na tànk ba Obali daa mën a tànk Aba na tànk ba Obali daj na ko ay ca combat ba ngoog Modou Pouye gars ko gis waaye gis ngeen ko tey mu ñëwaat si si si lutte bi di compétiraat ni mu ko daan defee ay ca combat la ñaari xale ñaari naataango combat bi war na mun a neex waaye boo seetloo du Pouye vétéran la par rapport ak moo ko jiit si lutte simple bi ay ca waaye nee nañ lamb dumaas padd na ko Toubacouta Modou Pouye Toubacouta moo fay tëndee di nuy sama frère Cheikh Ndour professeur d'histoire géo depuis Dionewar di nuyu waa Dionewar di nuy waa Île du ay ca combat bangok Toubacouta Modou Pouye Modou Pouye moo féete ndeyjoor wala moo yore ngemb lu ñuul li ngemb noir blanc moo yore ngemb lu ñuul li combat derby combat choc Toubacouta mëb na waaye demul Toubacouta Modou Pouye waaye di nuyu les anciens gloires de la lutte di nuyu ñëpp di ñëpp di jël nuyu bi rek di ko teg si Père Manga bi nekk seen président parce que tey ñoom ñoo xàll yoon bi tey ba booy ñëw tey di si daan seen doole di si gagné seen seen vie rek ni ñu ko mën a waxee. ay ca combat ba ngoog Toubacouta Modou Pouye di nuyu waa Jaxaw Sine waa Jok ak li ko war yëpp foofu suma fief la moo Modou Pouye combat ndaanaan Modou Pouye faaxat na ko mu may Toubacouta ngemb la bëgg Modou Pouye da ko kaay na ko xabal ba ca sori wala daa mooy Toubacouta kott ko Modou Pouye bañ na Modou Pouye Toubacouta mbotti na rëpp nañ jogaat Modou Pouye wetu na ko Touba bañ na Pouye wër na la ndombo trois appuis ma ngi koy tër ma ngay bañ Touba mbaa di nga ci génn Modou Pouye wër na la ma koy tër Touba bañ na oh Modou Pouye daan na ko ñett Thank you. champion. waay waay non non champion de. non grand champion nga man moom champion laa lay wax moom. ah non Fodé sama. da ngaa def ay preuve ma gis. dëgg la dëgg la dëgg la nga nga raaroon. dañ dab si waat ñëw rek final ban yëg ngay am. waaw dara xam nga laxatu woon di liggéey nag. liggéey ah xam nga laxatu woon lu métti. ak Serigne Touba waaw moo tax xam ñëw di wane fii quoi waaw moom la ñëw fi wane fii da def na quoi li dul dara. def na lamb na quoi. li ñu ñëw lamb nañ la sax ah? xam nga ki nga war a kii Ibou ah, ah, naa ko ngeen bëre. waaw bëre nañ benn yoon mu daan ma. mu daan la da ngay ñëw da ngay da ngay ñëw fayu wala. ah da ngay labali wala. non damay fayu. damay fayu daal kon maa la naan bonne chance. incha allah. Boucar Ndour. doomu ndey la am star. doomu ndey Madou Dione doomu ndey la am star. doomu ndey Lopez. doomu ndey Lopez Lopez Jibi Mbaye. doomu ndey Jibi Mbaye. sama doomu ndey. doomu ndey Go Faye. waaw di nuyu waa Sandaga. waaw Moussa Gamer Go Faye. waa Sandaga waaw Moussa Gamer états fa 4 mois. le 22 waaw waaw le 22 incha allah rabi monsieur le maire Go ñëw war def benn sortie bu doy waar. waa Parcelles ñëpp ñu ngi koy xaar. ma woo ne ma mbër ma ne ko waa mu ne ma waajal leen. man Go Faye bëgg ñu toog waxtaan. waaw Go da ngeen di toog waxtaan. parce que day jàppale jeune Parcelles yi. ma feebar du maire de mais lu ne bu doy waar lay def biir ak waa mouvement réaction yëpp. la maa ngi nuyu ñëpp. mais la politique c'est l'insertion. waaw nekk doomu jàmbaar. jàmbaar la jàmbaar la. tey nga looy yëg. waaw Go Faye maa ngi ko sant yaaga. nee di ñaan yaaga suñu borom bu ma naree jig ko jëg bu ma narta jig a fayu de. waaw taag bi Serigne Touba laa yàlla. laaxatu woon na waaw ñun ñëpp dañoo laaxatu woon. kon bàyyi ma ne la bonne chance. merci beaucoup. acca jaajëf jigéen ma jigéen a baax ma jigéen a baax arbitre sifflé na diggante Mamadou Pouy diggante Mamadou Pouy ak Obeuly final Obeuly mbaru maadu jon bi Mamadou Pouy moo féete ndeyjoor laay bu def borom sax ne ma koy koy nuyu di daan na ko Obeuly daan na Modou Pouye Obeuly daan na ba leer na